boo bàyyee tali bu mag bu nekk si loowa ñoomi dugal si ab yoon bu kurunkarang moo laa yóbbu si dëkk bi di Kër Gallo lu ëpp juróom benn fukki kër ñoo fa nekk liggéey bi fa gën a fës pour am xaalis mooy sàmm ab benn pompe nag moo nekk ci diggi dëkk bi pompe bi nag def nañ ko fa niki njëlbeeni nguuri Gambia bi nga xam ne dëkk bi yépp foofu lu ñëw utee ndox ci jamono bi pompe bile dafa yàqu te ñi fa xaalis pour defar ko njiiti dëkk bi nag ñoom awlante neen di wane seen njaxte ak itam naka leen soxlee ndox ci jamono bi. dëkk bi mbiri ndox moom mooy suñ problème yépp yépp yépp dem na ñëw na ndox mi mooy problème ndox mi courant bi courant bi mu ngi jaar ci tali bi te gis ngeen fi ngay ñëwee. pôle yëpp a romb waaye benn jàddut fi ngum gisaguñ ko de soo ndox mi di seen fi ne kaanuma daanaka motul tàng bi motul wan kilomètre yóbbu nañ ko Brending yóbbu ko Baara ñu jomp ñu te ñun ñëpp ñu ngay fay lempo mosu ñoo manqué fay lempo kon na nañu nguur gi jàppale ñu xam ne ñu nit ci réew mi lañ bokka ci réew mi lañ judoo ci réew mi lañ am amuñ fenn gannaaw Gambia. Kër Gallo ngeen may ñu ndox. boo xam ne ndox bu sell la boo xam ne dinañ ko mun a naan parce que ay doomi Gambian lañ dañuy fay lempo di fay lu nekk lépp loo xam ne si nguur gi rek ñu ngi koy pas ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jànkuwanteeg ñoom ñu ngi luwaay yi ñu ngi koy doxal ni ko war a doxalee dégg nga ñu ngi sànni karta nu ko war a sànnee war a sànnee karta kon ñun lan moo ñu war a teree am ndox ñun daal loolu man loolu jaaxal na ma torop te Kër Gallo li leen wër ñoo gën a jege dëkk yëpp tàng bi tàng baa ngi nii waaye dëkk yëpp am nañ waaye kër galo la amuñ loolu ñun xamuñ lan la ndax kër galo dafa bokk ci dëkk yi wala kër galo bokk fuñ ko teg te bu lempo jotee dañuy ñëw jël lempo bi ñu bugg ngeen jottalil ñu ko ne ñu boole ñu ci wala ñu ñàkk ñu ci boole ñu xam ne ñun kër galo nangam la buñ fayati lempo ñu xam ne ay surga lañ rek loolu rek moo fi man jigéen yi fa nekka feeñal neen jafe-jafe yi ñoo wanteel pour am ndox. su ma waxee suma diggante ak yàlla bi ma duggee si kër dëkk bi ba tey ñu ngi si coono ndox dem na ba si ñeneen fukki at ren si coono ndox. suñu xale yi dafa am beneen kër boo xam ne fale la nekk def ko liggéey ba pare bugg a si def dara defut fa dara léegi tàngam boobu foofu lañ dem ñaan ko mu ñu may ñu ngi koy root xale yi buñ jógee dem pajar balaa ñuy ñëw ten jot seen benn foos. trip bi ñeneen suñ demee duñ ñëw ba ba twelve ñeneen yi wan da ngaa gis loolu métti na ñun mii si lañ bokka dañoo dem ba foofu tawal xale yi pour ñu bañ a xeex ci alali jàmbur parce que suñ fa xeexee mën naa am li ñu war a am duñ ko am. sometimes dañ dee xeex sa pour ndox dañ dee nekk fii suba ba boori tuudoo mu neen root dañ dee root ba tàng bi daf dee mujj jeex sax boromam daf dee ñëw mu fay ko mu ne ñu ngoon ngeen ñëw sometimes dañ dee root ba timis. muulkat yi fii lañ dee ñëw root ñun toogakat yi fii lañ dee ñëw root xam nga boroom nag yi dañ dee ñëw pour ñu tray ñu naandal seen nag yi waaye daf dee nekk difficile duñ dee mun a am ndox daal soo ñu leen naa ñaan soo leen ñu munee jàppale rek ngeen jàppale ñu pour ñu am ndox because ndox soonal nañu torop ñàkk ndox bi emul rek si nit yi waaye mala yi nekk si biir dëkk bi sax yëg neen ko ay teen yi nga xam ne gas neen ko pour di amee ndox yépp wow neen mu waral nag dëkk bi ñu soxla ndimbal num mu gën a gaawee dëkk bi yépp si bennum soo bile la ñoo raxasee seen loxo yi pour mun a aar seen bopp si feebar bi di coronavirus kër galo amuñ lii di courant te itam yoon bu baax bu leen jokkale ak yoon bu mag bi nekku fa waa dëkk bi nag ñu ngi sàkku ndimbal si nguur bi ak képp koo xam ne mun nga ko ngir saafaral leen jafe jafe-jafe yi ñoo jànkuwante Lamine Fall Paradise TV News